Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf guléet yaa ngi bëgg a bari ci woppi covid 19 ji ñiy faatu ci coronavirus bi bés bu yàlla sàkk ñu dégg ci lu ñu ne mësuñu ko cee dégg le témoigné nañu dégg nañu démb ci bilan bi loo xam ne bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi mësee su ko cee dégg mu di ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yu wopp ju yóbbu ci 24 heures ci jëf joojee la yéenekaay bi sukkandiku ba tax mu bind ci xët mu njëkk ne joote ji nekk joote joojee mu di coronavirus bi Le Quotidien nee nañu ni muy lore sax jamono ji moo yéeme ñaar fukki Quotidien nee nañu la ñu fa seetlu moo di na fa feebar ba di faataatee dafay gën di yokku ne ci diiru mi mbir mi moo ngi leen di bëgg ëppi ndax ñoo ngi xam ne ci biir journal Le Quotidien ne bu njëkkoon danañu toog ñaari semaine wala sax weer woo xam ne la ñu fay rob gën koo bari du weesu ñaari néew léegi nag bi mbas mi duggee ca dëkk ba ak léegi rawatina ak troisième wàgg bi bés bu nekk danañu fa rob lu mu néew néew juróomi nit ba tey ca kees waaye ca département bu Mbour Le Quotidien mi ngi ñuy xibaar ne foofee ñàkkub centre de traitement épidémiologique mu di CTE moo sonal turbine wax ñu ne wax ji mooy situation bi mu ëppi loxo jamono ji troisième vague bi ak variant delta bi moo àndal mi ngi mel ni mawti ci kaw wi ñiy ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi bés bu yàlla sàkk dafay gën di yokk firnde li moo di ñaar fukki dese ak juróom-ñeent yi ñu am démb anki dina kay nañu delta bi ci boppam moo naqari deret te sonal lool ndaw ñi mu di jeunes yi docteur Ibrahima Sall di leeral ci xët mu njëkk journal bi ne malade ko ci xët mu njëkk enquête ba tey di wax ne dañuy gis ay jeunes yu feebar bi dal daaneel leen sonal leen faat leen te amuñu woon benn comorbidité mu di feebar bu ñu doon sooxaale bu ñu soox nañu dëgg tànk yi ba mu dëgër dem ci source mi xëy di ñu jàngatal oxygène bu seer bi ni doon jekkalee malade covid fii ci clinique privée yi li mu ci gis moom source moo di clinique privée yi dañu doon dund ci kaw askan wi mu ne ñu bi feebar bi yegsee ci la ñu tàmbalee jëndloo malade yi oxygène ci clinique privée yi biteelu oxygène bi daan jar 47000 jàpp 48000 demoon na ba yegg ci 90000 maanaam ñaar fukki junni yu manki ñaar laata wopp ji di maanaam ñaar fukki nit ak juróom vox populi nee nañu moom la jàngu bi ci réew mi di église bi maye ngir ñuy teew ci armeel yi bu ñuy denc néew ci jamonoy covid bi dogal boobee bàyyee ci archidiocèse bu ndakaaru ni ko journal bi jàngate ci xët mu njëkk moo di église bi waneeti na yoon wi giile yoon ñu wax ci convocation bu njiital suma assistance di docteur Babacar Niang libération mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw ba ñu ko déggee mu ne woon du wuy ji waa gendarmerie ci seen convocation bi moom enquêteurs yi ci seeni laaj bu nuppi ca la ñu ko bàyyi mu dellu këram libé nañu am nay xibaar yu ñuy xamal ne war na fa delluwaat waaye ba mu fa demee démb yóbbuloon benn preuve buy firndeel li mu waxoon Walf Quotidien wax ñu ne la mu waxoon moom docteur Babacar Niang mu di matériel médical bu ñu jagleel hôpital public yi ngir xeex mbas mi ñu koy jël di ko jaay ci clinique privée yi démb moom docteur Babacar Niang passé na examen de contrôle corps de environnementale ba ci au conseil collectivité territoriale seenu transparence la ñu seeni rapport ak seeni xalaat fa ñu ko joxee fa la ci tiroir yi ci lay mujj ñaare ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre maanaam 24 nit ñi danañu mën a tàmbalee di dem ak dikk ci train express régional bi xibaar la bu ministre Mansour Faye joxe mi ngi ko joxe ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ministre infrastructure transport terrestre ak désenclavement di di waxtaan plan route bi ak coppite yi ñu ci namm ci réewum Sénégal fañ ko fas yéene jaar ak la ñu ciy séntu moom Mansour Faye jëwriñ gi ñu dénk wàllu dem ak dikk ci tali bi mi ngi koy leeral ci yéenekaay bi dem beeg dikk bi ba tey waaye gile yoon ci wàllu jaww ji mu di transports aériens ak l'info mi bind ne compagnie bii di Air Sénégal tukkikat yi koy faral di jël ñu bari ci ñoom amuñu ci compagnie bi lu leen neex ñoo ngi ŋàññ ab liggéeyam ak i doxalinam ndax nee nañu bu ay billets yu seer di ay avion yuy tardé bi nañu li koy findeel moo di a bàyyeekoo 25 la fu mujjee bàyyeekoo te amuñu kenn ku leen ci indi lu leer baa ku leen ci wax lu ñu mën a dégg ñu wax ci li ci xët mu njëkk Les Échos ca Médina Fass Sicap Mbao fa la xewe mu di benn borom boutique bu faatu ci anam yu lëndëm yéen a kaay bi nañu moom borom boutique ba ba mu faatoo askan wi xaaruñu sapeur ñoom ñoo jangti jangtee néew bi yóbbu ko ca margo ba bëggoon koo rob waaye bi ko police yëgee fa la rob ba yam